liggéey bi moom macha allah rafet na trop aw ñu moom aw ñu sa fay yàlla rek moo mën a fay yàlla yàlla xew gën a yokk ba ñëw gën a barke ba ba ñu yóbbu la parce que doom yóbbu la màkk dañuy dañuy dañuy sonn dañuy dañuy nelaw guddi suñu mën suñu suñu nelaw ñu dañuy nelaw dañuy dañuy dégg ay paan waaw. ginnaaw bi nga xamante ni defar nañ ko léegi taw na fi. non taw fi taw taw na ànd ak néegi seen macha allah. am nga ci contentement kontaan naa. ana Pape. pap pap dafa génn. ak lal bi lal bi baax na de. moom macha allah baax na kay. ñaata tuut tànk am. na ñett tuut tànk. waa doo no doole benn. non non ah. <laughs> léegi ndax mën nga ñoo wax fi mu toll nii yan jafe-jafe ngeen di dund. yan jafe-jafe ñu ngi koy benn jafe-jafe nga dañuy sant rek. instant bi am ngeen waañ fu ngeen di toggee. non amuñu waañ marché amuñu non amuñu fu la ñuy toggee sa fii la gis nga mat yaa ngi nii matt matt laay toggee. kon lan mooy li nga xamante ni moom nga bëggaat ñu dolli la ko ci kër gi. ok amoon kii amoo waañ nag am gaz dina baax. soo amoon waañ am gaz rek dina baax. waaw jugee ci naaj bi ngay toggee. waaw moo am solo lool tey bàyyi sëwru ñëw indil leen matelas indi leen ravitaillement wax dëgg yàlla lan ngay wax jëf jooju. leen ko dama leen di gërëm rek dinañ sant kii moom sama xarit la moom daa ngi la bëggal ma boppam heure bii dem moom nga sama doom bi bu dee bu dee mu jox leen ñu bokk ko ñooñu ñëpp. waaye ñoo ñëpp dama leen di gërëm di leen sant. tey lan ngay wax ñu lay mën laa jàppale ci ay yére yow ak sa rek ku am rek jàppale ba sama njaboot yi lu baax rek nga jàppale ma sama njaboot. jàppale la ci yow tamit. man tamit jàppale ma sama jëkkër. am internet yi ci mbégte wax dëgg yàlla di sant bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoo ñu jàppandalal lii nga xamante ni mooy madla bi ak euh, li nga xam ne moo di ceeb ak diwlin bi di ci sant bu baax a baax euh, soxna euh, Anta Ndiaye nekk fële ci diwaanu États-Unis wax dëgg yàlla yëkkati xéewal ni ñu lu ma bëgg mooy rek ngeen jaayanteel soxna si lu mu gàtt gàtt mu am li nga xam ne moo di ravitaillement madla bi itamit ñu siy sant bu baax a baax benn yaay booy bu nekk bitim réew moom itamit mu jàpp ci jox ko madla ngir noppal yaay booy bi ci tëraay bi ñun tam ñu leen ciy sant bu baax a baax ak képp koo xamante ne am nga yéene jàpp ci wax dëgg yàlla di wax ne deuxième vidéo bi mu dawee ñaar ñi ñooy ñi nga xamante ne ñoo ci barkeelu waaye Baye Pape mbégte bi ñuy amaat rek mooy ginnaaw keroog bañ fiy jógee xamaloon nañ leen ni leen nag bi beneen néeg bi fi nekkoon dañ koy daaneel ñëw nañ tey fekk ñu daaneel ko alhamdulilah naam kër gi xawoon am espace waaye métit bi ba tey mu ngi fi ndax waañ bi nga xamante ni moom lay toggee ba tey fi lay continuer di toggee te kër gi tamit amul toilette ci kanam di nga jël seen toilette bi waaye di sant bu baax a baax Baye Pape soxna si kii borom ngor la wax dëgg yàlla damay wax ne jigéen ñëpp war nañoo roy ci soxna si jëkkëram tawat bu metti la amee muy pap crise waaye comprendre na ko compréhension boo xam ne bu pap dee crise moom soxnaam mooy daw ñëw toog ci wetam di ko dëfal ak naan ko se ay léegi mu ñëw noppil sa ay léegi mu ñëw di ko naxtaan wax dëgg yàlla uuf njabootam gi nekk nañ fi ñetti fan yoo xam ne den amul benn yoon buñ ko gis mu jàmbat dara muy soxna yor ay tout tànk ba pare nekk jàmbaar nekk di sëy tamit ci anam bo xamne wax deug yalla jigen ñu bari so leen ko tegon tay dañuy bañ waye mom mu nangul ko yalla gis nga ko tay biñ fi ñewate lalam biñ fi bàyyi mom moom lañ fi fekkat waye gis nga ko biñ koy wax lal bi mom mi ngi sant yalla mom alhamdulilah mom japp nañ lu mu am rek sante la motax tay buñ ci boolee matelas bi wax deug yalla dina gënal leen na noppal ci bi waye di sante wa Ka Argent yi ñu andal yëpp di wowaat rek bonne volonté wax deug yalla ci ñi nga xamne ño ci japp jaayante ak yalla dégg na ko legi mu wax ay cadeau mu ne ginnaw biñ fi defé neegi ba dem tawat na fi waye bimu tawé seen gi sennul benn yoon alhamdulilahi rabil alamin kon am na ñoo xam ne ñu ngi naan néegi zinc yi nañ sooraale dafa tàng dëgg la tàngaay lañ nekk waaye ma fàttaliwaat leen fii amuñu droit tabax ko ndax ñoom terrain bi moomuñu ko kon nag lii lañ fi mën a def moo tax ñu def ko fi te jëm yàlla rek tax buñ sañoon nag am ay contre contreplaqué ñëw ay contre contreplaqué wërale ko ci néeg bi yëpp nga xam ne su lu tàng-tàng Euh, euh, tàngaay bi du dugg ci biir néegi wax dëgg yàlla mais comme doole matewu ko loolu moo tax ñu defal leen ko ne waaye ñoom ñu ñu ko defal day mel nañ ne ñu ñu tabaxal immeuble ndax sant nañ waaye soxna si daal mu ngi nii képp koo xamante ni mën nga koo dimbali te yàlla rek tax lu jëm ci lal daal moom ku ko ku ci mën a dimbali te yàlla tax na ko dimbali ci lal gis ngeen ko armoire am bi nga xam ne moo téye woon néeg ba ba tey moo nekk nii armoire moom lii la def armoire wala armoire wala lépp loo xam ne lu doomu aadama aajo wala rek dina gën a doon mbégte ci li ma ci gën neex rek mooy yaay booy moo gënoon a yokk tax ñuy sonn di fi ñëw ba tey ji yeggseegul ci kër gi pour gis liggéey bi nga xam ne moom lañ fi liggéey ba pap ay yére moom ak njabootam ci am fu mu waaw di wax ne rek nañ ñu roy ci soxna si nga xam ne moo nekk fa la ci marché Dior lii yi nga xamante ni moom la ma joxoon joxoon naa leen ko ci sama yoon bii ma fi mujjee woon a ñëw waaye li ci ëpp ay yére mag la yaay pap lay jot may sàkku ci képp koo xam ne am na yére yu ko jot moom wala yére yu jot doomam yi gis ngeen yére doomam yi yére mi ma leen fekkee woon ñuy sol keroog ba tey moom laa leen ñu sol ko kon nag képp ko am ay yére ay ndab gaz lépp lu jigéen di soxla ku ko am te mën koo dimbalee sa moroomu doomu aadama bi te jëmmi yàlla rek tax ñoo ngi sàkku ci ñëpp ñu dimbali ko waaye dimbali ko ci li nga xam xamante ni moo di waañ te yàlla rek tax dimbali leen ci duus loolu la ñu ngi ci woo bonne volonté yëpp ñu ngi ci woo bonne volonté yëpp te jëm yàlla rek tax